te muy jëmm ji tedd ji nga xam ni moom lañ jàkkaarloo mooy Serigne Khadim Bachir Mbàkke suñu borom dogal jamono ji nga xam ni yàlla dogal na xam leen teg daara ji am yàgg nañ kaa seede ci sa kanam waaye it seede ko ci mbooloo mi xëy na warteef la ci ñun daara ji ndax képp koo xam ni yaa ngi yeewu ci daara ji di ci xëy sa xol ak sa yéene li mu am li mu ëmb mooy sëñ Xaadim Bachir si na fi yàgg te wér ndax jëflante gi ak jëmmal daara ji ak téye gi mu téye daara ji bëggal ko boppam def ko mu yëfi boppam te donte it yëfi boppam la ndax yëfi sëriñ Touba la te ñoom ñii ñooy sëriñ Touba fépp fu waay di yëngoo ci Serigne Touba fu nekk ñoom nga yëngul mu xam loolu jàpp daara ji lu ñuy doon ay tu tànk tuut tànk seetut loolu waaye moom mu jàpp leen ngi jëmmi Serigne Touba. bi ñuy am leen teg daara ji yàgg na lool fekk na ñu si baree bari ñoo xam ne xëy na ñu ngi ci kuréel yi léegi nekk nekk nañ seen ay mag boobu fekk na ay tuut tànk yi ndaw ndaw lañ woon kon ñuy ñaan suñu borom yàggal taxawaay bi gën a guddal fan bi gën a yàggal ànd bi te ànd bi yëpp mbàkke liñ ci sàkku di ko ñaan rek nga xool ñu ci sa jëmm te ba ñoo xool ci sunu jëmm boo ñu xoolee ci suñuy jëmm rek dañ na yéex a dab kon boo ñu xoolee ci sa jëmm rek danga ñu yóbbaale te Mbàkke ñu ngi sàkk nga yóbbaale ñu daara ji yëpp mi ngi sàkku nga yóbbaale leen di sàkku it ay ñaan yoo xam ni danañ ko yeesalaat ndax saa su ne da ngay daara ji waaye ñu ngi sàkku ay ñaan yoo xam ne danañ koy yeesalaat jëmale ko ci daara ji mbo mbooleem dëkkandoo yi ak mbooleem képp koo xam ne ronoon na baas bi sëñ Xaadim it ña mu àndal ñëpp di ay taalibeem buñ tuddee sëñ xaadim rek tudd nañ ñëpp sëriñ bi it yéene gi mu am ci daara ji moom la ko amee ci gox bii di Nord ndakaaru moom sépp foo ko tuddee xelam li mu ci njëkk a dem mooy Nord te yàlla dogal na ni am na ci benn taalibeem boo xam ni ci taalibeem yu mag yi la bokk bi mu déggee ne ko Nord Foire la nekk dañu ko wëral waa daara Touba Tawfekh ba gis leen bés boobu kooku day woor di wër di wër ba ñu ko demal kër paaxudër ñu tegtal kër paaxudër ci la fa jógee ñëw fekkaat ñu ko ñoom bàcc njaay ñuy jàng mu ne lenn andiwuma fa suñ xaadim moo ma jox ndigal naa wër daara Touba Tawfekh ba gis leen ma saafoonteeg ñoom ndax damaa nekk noo foir kon loolu cër la boo xam ni sëriñ bi fonke na ko daara ji fonkin goo xam ni mat naa sant yàlla waaye mbàkke ñiy sàkku rek nga dal ñoo ñaan suñu borom gën ñoo téel boppam gën ñoo sàmmal boppam ay ndaw lañ te ndaw du të ndaw du rëcc day mucc te mag a koy muccal te yéen da ngeen ni mag yor alalu mag kon Mbàkke ñi ngi leen koy ñaan bu baax a baax waaye ndaw yooyu it day wax dëgg yàlla Mbàkke am nañ ay jëwriñ yoo xam ne sant nañ leen lool sant nañ seen jëwriñ yi lool wax dëgg yàlla ndax fu ñu nekk ci liggéey bi ñoom ñoo leen ñoom ñoo leen jiitu ci kanam duñ leen bàyyi ak liggéey bi benn yoon ndax liggéeykat bu dee liggéey bu rëy di liggéey bu am solo ay xale kese yor ko xeel war na see teel war na see teey ndax sëriñ bi daan wax ni mbir bu bëggee jag ñett rek a ci yor ku am xel ku am koom ak ku am doole xale moom daa miinoo am doole waaye du am xel magit dana am xel waaye mën na am bañ a am doole bu ko ci yàlla dénkee koom nag dana gënati lool te loolu it daa daje ci daara ji sunu waajur yi nga xam ni dale ko ci si bàyyi xabaan ñang tëjuñu seen kër benn yoon am léegi daara ji noo xam ni amuñu benn waxtu woo xam ni da koy jóg jëm ci kër yi nga xam ni jëwriñu daara yi ñu ngi fi ngay xel ñaar dangay ngay jóg def na nam la soobee rek loo bëgg a def nga def ko boo bëggee si nga si am na ci waxtu yoo xam ne sa wóor nañu ni nit sax war na ko di dallu waa daara ji dañuy dem ba foofu di jàng xasida léeg dañuy dem ba nga xam ni yendu dañ koy def ci kër gi ndax wàccaayu màggal yi kii yu ni mel programme yi di gën a chargé wu dañuy dem ba yendu ci kër gi 10 heures ci suba lañ fay ñëw ba ñu faa jógee 22 heures te loolu it li ko war waral mooy yaatal gim ñu yaakal yaatal nàmpatal gim ñu nàmpatal ci sëriñ ni ki noonu ni sunu Baye Malick Fall ak it waajur yi nga xam ni nekk nañ ci daara jépp sunu Baye Malick Fall gis ngeen ko moom it day saytu daara ji waxtu wu ne fan la mbir yi toll foo leen ci toll pastéef bi yokkaat leen pastéef bi di ñu bett ak ay xéwal yoo xam ne day kawe sax suñu jot ngir bañ dara rek manqué si daara ji te kon loolu it wax dëgg yàlla ak cant la goo xam ne danañ leen ko seedeel mbàkke ba mbooloo mi xam ni sunu jëwri ñii kat ñii la ñuy jëflante ak ñun nekki noonu sunu papa Baye Kassem mooy mi ngi nii toog ñoom ñëpp buñ ko dee lim daanaka mën nañ fee fanaan waaye ñoom ñëpp noonu la ñuy doxalee ak daara ji bàyyi ñoo tur yi benn yoon lu taxaw seen kanam rek dëgmal sëriñ bi waaye noonu lay xam nañ liy liggéey sëriñ Tuubaa xam nañ li muy jariñ ndax liggéey sëriñ Tuubaa amul retrait moom da ngay jaamu yàlla ba kiroog rek sunu borom di la soxla te yàlla na yéex loolu it danañ ci sant sunu waajur yi nga xam ne nekkoon na fi ginnaaw buñ sante si nga Abdullahi Mbàkke sunu waajur bi nga xam ne mooy bàyyi baaxudar si la sunu borom gën a dolli ay leeram ak mbooleem waaye doole yi nga xam ne jiitu nañ te daan ranu baas bii sunu borom dolli leen taxawu dolli leen dimbal kàddu yi dañ koy gàttal ndax sëriñ bi daa war a xëy na delluwaat ci yitte yi ñu amoon yéene ba ñu guddal kàddu yi moo tax ñu ne woon nañ ci barkeelu rek sant mbooloo mi baax a baax ci teewaay bi di sant dëkkandoo yi te wax dëgg yàlla ndax gàmmu gi jàppe na nañ ko noo xam ni kawe na njott waa daara ji ndax biñ niñ ko jàppee dangay ngay génn si mbedd mi sax nit ñi naa leen seen gàmmu gu fi mu toll te loolu yi dëkkandoo yi rek ñoom ñoo ko waral ndax mënoon nañu gis ñuy baas fii ñu toog seeni kër te ku ci toogoon sa kër ku nekk soo dundalee gàmmu gi di ko am waaye nga ne naa ñëw ànd ak waa daara ji kon ñu ngi ñaan ànd googu yàlla na ko sunu borom nangu te dool yi seen xéwal bu baax a baax ñu ngi leen di sant nag bu baax a baax ah, dañuy jël kàddu gi jël jébbal ko sëriñ sëriñ bi xam naa sëñ Cheikh ah, sëñ Cheikh Cheikh Bamba xam naa kàddu gi lañ la koy jébbal rek incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ baa ngi nuyu mboolem ñu fi teew commencé ko ci jëwriñ yi bu ñu limee suñ bàyyi xaban ñang daanaka matal na daayira ji yëpp suñ xam ne mi leen di nuyu di leen sant den ndokkeel guddi gi nee mi ngi fésal feeñal ci xolam bu sedd ak mbégte ci yéen ndax diiru mu fiy ñëw musul gis lenn ci yéen lu soppiku jëm ci àddina walla ndor lu jëm ci mbirum àddina ni ko sëñ Tuubaa waxee ñu màggale ko guddi màggal guddi gàmmu dara du ngeen ko ci bàyyi lépp day tegu ci sunna te noonu la ko Sëñ Tuubaa digle kon nañ ci sant bu baax a baax gis nañ daal ànd gi moom da ci gis-gis boppam da ci gën gën jëg boppam li ngi ci gërëm nag seen waajur yi nga xam ne ñoo leen toq ci lii nàmpatal leen ci te boobu ba léegi bàyyiwul leen nekk seen gannaaw kon ñoom it am na leen gërëm bu baax a baax ngeen sant bu baax ndax xam na ni yéen yëpp eh, li si ëpp ci daara ji ay tu tànk noonu kon bu ngeen mënee def yenn yi waajur yee si jàpp kon ñoom it am nañu am nañu ak cant go leen beral waaye nee na it ngi sant bu baax soxna yi ànd gi rafet na lool gis na ni lii ma fi ñëw bu si lenn loo xam rek am na lu ko naqari ci ci biir daara ji muy jëm ci soxna yi wala ci góor kon yéen ngi tënk ci yoon bi tegu ci siraatul mustaqim yàlla nee na yàlla borom saxal leen ci aar leen ci nee na moom xorom seet na buy ba tax na ay cat ay kàddu cant rek lay wax waaye mu ne sant bu baax di gërëm bu baax daal moom moom amul lenn wax sant rek waaw ndax na boppam bu baax ci guddi gi waaw ñu ñaan jàppal leen góorgóorlu bu baax a baax ndax lii ci la bokk. te ñoom ñii bokk nañ si inspecteur sëñ Tuubaa yi ndax liggéey seen seen liggéey maam bii caaxeewuñu ko foowewuñu ko bu ñu fi gisoon leneen loo xam ne safaan la lu ndóowul la di seen maam santaane dañ fi teg seen tànk suñ leen rusee wax leen ko am fol gi toll na téye seen tànk ci mbooloo waaye gis nañ ni lan koy defee fa mu dëgg fa mu jóge mel na daa jóge ci kees dugg ci kees rek dara wutewu ci kon ngeen sant bu baax yàlla yokk mbooloo mi doolu leen wér doolu seen kàttan doolu seen sutura teg na si siraatal mustaqim sëñ bi nangu na sunu sunu taalibe te saxal na ci gën a xiir xale yi nag ci daara ji ngeen nàmbatal xale yi ci daara ji ñu gën a farlu ci jàngum xasida yi ak xam seen mbirum diine ndax jamono fi mu toll ni lëndëm na loolu te xale yi bëgg na nu baax waaye xamuñu fu nu jëm kon su yàlla mee am daara ci biir gox ngeen war a profité bu baax ci dimbali xale yi ci yar leen xamal leen ndax nit moom bu xamee rek dana yaru waaw boo ko bëggee jëfandikoo ko moom fa nga fa nga yar ko te yar gi moom may jàng jàng na ci jiitu bu jàngee dana xam dana dana dana mën a moytu lu bare waaw nit a ngi moytu nit a ngi def loo xam ne ñàkk xam moo tax mu koy dugg mu si dugg kon bu xamee rek dana ko dimbali ci dimbal ci àddinam kon guddi na ba pare te xam naa ni programme bi jeexagul. li sëñ bi waxoon yëpp bare na man na sama gàtt xel moo tax mun maa matale lépp ndax fa mu toll man togg ma toll ma fa damay jéem ci wax ci kàddoom rek li nga xam ne jàppan na la ci man rek naa ko mën a matale naa ko mën a waaye wax na lu bare jëme ko ci yéen lépp lu ci manqué man la waaye mu ngi sant ne war na la moom xolam seet na ci yéen bu baax a baax sant nañu bu baax a baax ñaan yàlla may na fekk déwén yu bare kenn bañ a manqué képp ku fi indoon aajo suñu borom faj sa képp indoon jàngoro suñu borom faj ko ñëpp dellu ci jàmm yàlla may nu fekkaat ko ay déwén i déwén barke Xaadimu Rasuul ngeen taal loxo sëñ bi ñaan dafa dem léegi balaa libéri si balaa ñooñ di ñaan mottali wël rek foofu jërë ngay loxo yi tàllal loxo yi sëñ bi ñaan amiin yàlla amin ya amin ya amin amin amin amin ya amin Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Jërëjëf